mbokki mi noonu ñaanal mboolem soppi Seydina Mouhamed yi yàlla yokku leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam gërëm bu baax a baax Seyd Alhaaji Pape Cheikh Diallo mu baax mi fi bàyyi ko léegi ak sunu jigéen ñi ñaanal leen ñoom itam yàlla na yàlla yokku leen dëgëral ci daraja Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi am jàmm yàlla mi nga xam ni mooy turam ba jàmm la ñu ñëpp aljana bi ñu bëgg a dem mooy daaru salaam li ñu jokkalante ci sunu biir mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi kon mbokk yi jàmm jooju nga xam ni yàlla ci boppam moo ko tuddee boppam jàmm jooju aljana bi ñu bëgg a dem ñun ñëpp mi ngi tudd daaru salaam beneen bi mooy saa yoo dajeek sa mbokkum jullit la nga koy wax mooy maa ngi lay ñaanal jàmm yàlla nekk ci sa kaw kon jàmm jooju la ñoo ñaan réew mii di réewum Sénégal yàlla def fi jàmm waaye itam yàlla dolli fi xéewal mbokk yi yenn saa yi nit di yootu dara fekk gënul ci moom ñaan nga xam ni borom bi subhanahu wa taala yàlla lu mu namu daa war te lu mu yeggale daa jot te la jot yomb mag ñi nii bu sa bëgg-bëgg teewee bëgg bëgg yàlla teew bàyyil sa bëgg-bëgg topp bëgg bëgg yàlla xam ni bu dul woon bëgg-bëggu yàlla doo fiy toog ba ami bëgg-bëgg am ñu ni bàyyi bu saaxorat jàllaw anhu ne bu nu xippi woon sunu bët yéerndu ba gis magasin ba mbaa jal ba mu ni du ñu jiiroo te du ñu tafu ba léegi may wax ak yow yàlla nga ak lu amagul borom te soxlawu ko yàlla ni ñaan leen ma ma may leen ñaan leen ma ma may leen moom borom bi subhanahu wa taala jamono ngoog yenn saay mbambu dikkal la yenn saay coow dikkal la yenn saay mbégte dikkal la yàlla moo toggale noonu doomu aadama al insaan huwa zalika al maxluuq allazi rakaba allahu fi l aqla wal atifa wa jaala fihi qabiliyata salaahi wal fasaadi wa zawaja fihi tabaaia al mutadaad tabiata al xayri wa tabiata charri yaqulu llahu taala fi hada almaxluq alajib inna xalaqnaahu min nutfatin amshaajin nabtaleehi fa jaalnaahu samian bashiran inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafuran fa huwa idan annafqatu rabbaniya walqabdatu tiniya kama qala taala fa ida sawaytuhu wa nafaqtu fihi min ruuhi faqacu lahu sajidina wa qala aydan xalaqtani min niirin wa xalaqtahu min tiinin kama qala muallifu lkitab fa yaxinnu daka li ardihi bitasafulin wa yaxinnu za li samaihi bitasaudi yenn saay doomu aadama yàlla toggalee la yenn saay nga am mbégte ba dee ne àdduna bi te yaa fi gën a bég waaye yenn saay nga am naqar ba naan lu ma def yàlla yenn saay nga am naqar ba lu ma def yàlla guddi gi yàgg ci yow problème yi di la mbam bu jàpp la coow dikkal la boobaa si naal yu nee na na nga wéet dugg sër ku mën a kan xoolaat sa bopp delluwaat sangu yeesal sa njàpp jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ni mooy borom bët bi yàlla mi bind jaam ñi moom leen tiim na lépp moom borom bi subhanahu wa taala yenn saa yi nit toroxal la mbaa def loolu bon ah jàppal ni moom borom bi subhanahu wa taala tiim na lépp mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni moytu moytundiku leen ñaanu ku nu baaxul itaqi daawatul mazluma ñaanu ku nu tooñ nit boo ko tooñee bu la ñaanee yàlla dafay nangu dafay dal yenn saa yi doomu aadamay dem ba mu yàgg mbiram di yàqu mbiram di daraam doxatul mu nekk ci problème fekk dafa am ku mu tooñ mbaa nga toroxal as gor mbaa nga wax gor lu ñaaw mbaa nga def gor lu ñaaw mbokk yi lan mooy tuumaal as gor am loo yóotu mënoo cee jot nga ni kii il ma tuumaal ko pour mën a jot ca loola tas ngeen sëyu jàmbur yi lu waral loolu yàq ngeen liggéeyu jàmbur yi lan moo waral loolu fexe ngeen nit ñi ñu dàq leen lu waral loolu mbokk yi bàyyil xel ñetti fan yi bàmmeel bés la boo xam ni wax naa la barki démb baay bu saaxu radiyallahu anhu nee na ñaari lëndëm yi péex mi dox ci diggante bi warul tax nga fàtte yàlla waaye itam warul tax nga fàtte sa bopp mooy lëndëmal biiru ndey ak lëndëmal biir bàmmeel biiru ndey kat doo fa yàgg ndax juróom-ñeenti weer rek nga fay def mais lëndëmal biir bàmmeel mën nga fa yàgg mën nga def mën nga fa def téeméeri at mbaa ñaar téeméer mën nga dem sax ba def fa junni at muy lëndëmal biir bàmmeel jàppal ni loo defoon doomu aadama ci àddina waaye loo jaamu woon yàlla ci àddina daañu ko def muy kees goo xam ni daañu la ko taajal moom ngay dundee bu fekkee lu baax la lu baax la ngay dundee bu fekkee lu bon la lu bon goog ngay dundee ndax wal xabru sunduqul amal kenn ku ci nekk ci ñun sa bàmmeel sa keesu jëf rek moo la fay fekk mbokk yi yenn saay mbambu dikkal la coow dikkal la lépp di ay tuuma yu la teg bàyyil xel borom bi subhanahu wa nattu lay doon nag yenn saa yàlla na nattu jaam ñu tuumaan la yenn saa yi yàlla na nattu jaam problème dikkal la si sidna Alioune wax ni wa isa bulita bi nag batin la laha mu ni man zaar ayta musallaman la yunkabu mu ni wa isa bulita ndéem nag toof na la bi nag batin ci tiis bi nag batin ci ay problème mu ni fasbir laha na nga ko muñ na ko muñ man zaara ay ta ana kan nga gis man mu mucc laa yun kabota na toofunu ko ñu ni ko waaw loolu lépp bu amee naka la def mu ni fad'u li rabbika ñaanal sa borom te may borom bi subhanahu wa taala xam ni innahu adna min hablil waridi wa aqrabu nga xam ni kenn ku ci nekk ci ñun sa bàmmeel ki la ko gën a jege mooy sa buumu xol euh, kenn ku ne ci ñun sa buumu xol avant ngay xalaat avant ngay xalaat yàlla ci boppam xam na li nga bëgg xalaat mbokk yi réew mi di réewum Sénégal waxoon naa la barki démb ni la ñu ko dëkkee woon maam Cheikh Umar Fuutiyu Taal radiyallahu anhu borom jihad ja coono bu ne mu daj ko ngir lislaam dugg ci biir réew mi alxaj Mouhamed Lamine Zeynu ba ca ay relaaw Ceerno Jamli ca Tabe Ngot Ceerno Alfaaja ca Ñaabina alxaaji Seex Caam ca fatik alxaaji Baaba Jongu ca Padoor jàmbaar ja Seex Seydi alxaaji Malik nijaayam ja Mama Fahima Yoro ñu baax ñooñu le Cheikh al Xadim radiallahu anhu maam bu Kunta maam Limaamulaahi Seexu Cene ba maam Alxaaji Abdoulaye Niass maam Khalifa Seex al Islam Alxaaji Amadu dem ca ca Sookoon mag ñu tedd ñooñu le ak yeneen mag ci li ci biir réew mi mënuñu leen a lim ndax teraangu yàlla defal réewum senegal ma wax la ni la coono yuñ ñu doon daj du pour ñoom rek ak seen njaboot waaye pour réew mépp la. jël doomu aadama yi daan leen defar pour ñu bëgg yàlla bëgg Seydina Muhammad waaye itam pour ñu comprendre àddina mais pour réewum Sénégal mën a jag mag ñi daan xeex xoolal Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nga xam ni xeex gu ne daj na ko ci jeunesse bi daan leen wax ni nangeen am yar yéen ndaw ñi Serigne Cheikh ni dee leen xóotal seen i gëstu Serigne seex ni na ngeen fexe xam àddina Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu daan wax yéen xale yi. yéenay ndaw ñi nga xam ni yéen la jamono yaakaar te jamono bu la yaakaaree que la njëkk yaakaar mooy sa réew sa réew moo la yaakaar kon ndaw ñi bu leen kenn dugal ci lu ngeen xamul bu leen kenn tax ngeen fawee seen àddina bu kenn tax ngeen fawee seen àddina am ngeen carte jël leen seen carte dox leen ndànk bu leen histoire bu leen yuuxu bu leen xeex bu leen nekk ci dara dem leen rang leen ndànk dugg leen yéen a xam ku ne ci seen xol yéen a xam ku leen doy yéen a xam ki ngeen déglu discours am mu doy leen ngeen voteel ko ndànk génnaat dem ñibbi ay waay histoire boo ko indee nga génn ci àddina dee ca mbaa nga gaañu ca sonal nga say mbokk boo deewee sonoon nga ñi la taf ci seeni xol yaa ngi bàyyi ñu ngay jooy yaa nga bàyyi ñu ngay yuuxu ndax waroo bàyyi ñoo ñu xel am na deeyin goo xam ne boo ko defee da ngaa xaru kon xalaatal sa digganteeg sa boroom ndax nit bu xaroo safara la jëm nit bu xaroo safara la jëm doomu aadama warul xaru doomu aadama warul indi fitna ci biir réew mi te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni al fitnatu naimun laanatullahi man ayqadaha yàlla nee na fitna ma ngay nelaw waaye yàlla rëbb na rasulaay nee na yàlla rëbb na ki nga xam ni yée mi ngi yee fitna lu tax réew mi war a tàkk lu tax nga ni liibu amul réew mi dinaa ko taal lu tax nga ni lii bu amul dinaa yëngal réew mi pourquoi nga war a yëngal réew mi lu tax waroo indi jàmm ci biir réew mi ki ëpp jàmm ñëpp bind la moom la te mooy borom bi subhanahu wa taala sayyidatuna Xadija keroog bi sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalaam ni ko Xadija mu ni ko labbayka mu ni ko jibril ma nga ne dem jibril nee na ma yàllaa ngi lay nuyu te yàllaa ngi lay nuyu rasulaay donc daan dégg waaye ma ngi lay nuyu yow Xadija te bintu Xuwaylid keroog la Xadija jug tàllal ñaari loxoom ya ne ko yàlla day mooy boromu jàmm allahuma anta salaamu wa minka salaamu wa ilayka yauddu salaam tabarakta wa taalayta ya dal jalal wal ikram am na yeneen nusxa yu wax leneen waaye na Khadija la mu jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala daf ne ko yaw yàlla yaay jàmm yaa jàmm ci yow la ne jàmm ci yow lay dellu yaay màgg yow borom bi subhanahu wa kon mbokk yi nañu profité waat ànd sunu xel laabal sunu xol xam ni réew mii boo ko taalee sa réew nga taal lu tax ñu war a taal sunuy bis yi nga xam ni kenn moomu ko jeunesse bi moo ko moom. ndaw ñi war a jàngi ñoo moom bis yi tata yii sunu ñoo ko moom ñi war liggéey ci sénégalais yi ñoo ko moom lu tax ñu war ko taal lu tax ñu war a taal université bi lan moo ko waral lan moo war a tax ñu taal sunuy Sénélec taal sunuy Sonatel lan moo war a tax ñu taal loo xam ne réewum Sénégal moo ko moom mbokk yi am na ci ñoo xam ne taaloon nañ seen i mairie bërëbu fa nga xam ne fa ngeen juddoo seen i kayitu juddu ne fa ëllëg bu ngeen soxlaa carte d'identité wala ngeen soxla seen njaboot seen i këyit war koo soxla dem fekk taal ngeen këyit ya lan moo waral loolu ndax nit warul jëfandikoo xelam ndax nit warul ànd xelam ndax yàlla ña muy waxal muy borom xel yi yàlla dem na ba mu yàgg mel ni ko jëppi doomu aadama yi mel ni yéen nit li leen yàlla defal xamu leen ko mu ni Seydina Muhammad wax leen ñoom li ma leen defal ay kéemtaan la mais ñeel borom xel yi mais mbokk yi am na ñu am xel waaye duñu xalaat inna fi zalik la ayatin li uli am na ñu am xel yàlla demal ba mu yàgg ne inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkaruna lii kat ay kéemtaan la mais ñeel am xel ba noppi di xalaat inna fi zalika la ayatin li qawmin am na ñu am xel di xalaat mais xel lu wunu yàlla ni xam ne yàqelu na mais am nañu am xel di xalaat ba noppi xellu mais gëmunu borom bi subhanahu wa taala xam ne yàlla mooy séddale pour yàlla li xaw min yuminuuna yàlla mooy joxe waaw yàlla ku am nguur yàlla la ko jox ko tedd yàlla la teral ku tedd di yàlla la tedd dil qulillahumma malikal mulki yàlla ni Seydina Muhammad wax leen di nguur gi nuy xëccoo ci sama loxo la ne tatation tuutil mulka man tashaa'u nguur day maa ko jox ku ma soob wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u maay rocci nguur ci ku ma soob maa koy rocci maa ko jëlee ci Abdou jox ko Ablaye Wade maa koy jëlee ci Ablaye Wade jox ko Macky Sall maa koy jëlee ci Macky man yàlla maa koy jox ku ma soob وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ku yaakaar ni mën nga dara kii la ko mënal nga war a bàyyi xel ki mën dara mën mën lépp attan lépp mooy borom bi subhanahu wa taala ana Namruuz mi waxoon ni adduna bi ñoo koy moo ko yilif ana Kanaan ana ñi waxoon ni adduna bi ñoo ko moom ana borom xel ya ana gaa yi ñëwoon ayna Namruuzu wa Kanaanu wa man malaka al arda wa walla ana ñi méngoo wun suuf si ay na arbabul xija ana borom xel ya ay na ahlul nuha ay na ahlul ilmi ana borom xam-xam ya ña nga xam ni livre yi tey jommal la boo koy liir mu jommal la ana philosophe yu mag ya ana ana borom xam yu mag ya ana ñu ana Socrate ana Platon ana Aristote ana Alexandre le Grand ana ñooña nga xam ni ci wàllu nasaraan gi ngi di xëccoo ñooña ana ñu tey ëppoon leen xam-xam la ñu wax tey jommal leen mais ana ñu baax ñi dëkkee woon réew mi. seeni xasaay tey boo ko liiree mu jommal la anañu tey ay arbabul xija ayna ay nuha ayna ahlul ilmi ayna man shaado wa saado wa banaw ana ñi fondement woon gratte-ciel yi ana ñu tabaxoon ana ñu tey ñoom ñëpp tey ñu ngi ci biir suuf mbokk yi Sénégal gii fii lañu ko fekk senegal gi fii la koy bàyyi jiitalal intérêt peuple bi te bañ a jiital si intérêt bopp bul yaakaar ne yaa moom lépp yaa xam lépp mbokk yi am na koo xam ne ku ko wax lu ñaaw martabaam mën na laa fàdd na ñuy waxante rafet ci suñu biir ndax al martabatu laa tusaamih gis nga martaba du jégalu mukk martaba du baale tey mën naa laa tooñ waaw maseer mën naa laa tooñ tooñ la wax la lu ñaaw xas la ci télévision bi mu ñëw ci yow ne la waaye sa waay baal ma ak waaye politique la rek nga ne ma waaye baal naa la mais sa martaba moo may fàdd parce que martaba du baale martaba du baale mbokk yi nañu toog ak sunuy doom waxtaan ak sunuy doom mbokk yi nañu waxtaan ak sunuy njaboot pour nu mën a xam ni Sénégal gii li koy avanceel man dama yaakaar ne Sénégal ba tey ñu ngi raam doxagunu ba tey réew yaa ngi avancé coow lu bari am réew coow lu bari yoru ko am réew liggéey moo ko yor war a xëy 8 heures xaar ba 10 heures ngay door a xëy te a wax jotee yaay gën a bari looy wax yow liggéeyoo dossier buñ la jox comprendre ko sa poste nga jiital poste buñ la jox balaa nga ngaa wax dara fexe sa compte fees ba noppi liggéeyuloo sa réew ba noppi gën a bari wax ci biir réew mi nañu xoolaat ñooñu tegee leen ko teg xool ñuy liggéey ñu ànd ak ñoom réew mii ku ni maa ko moom xamoo li xew réew mii kenn moomu ko ñun ñi koy dëkkee ñu àndandoo bokk muum réew mi. yonent bi wax ni bëgg sa réew bokk na ci gëm yàlla xubbul watay minal iman am na ñoo xam ne nag seen intérêt personnel moo leen jiital nañu àndaat suñu xel kilifa yi teg leen seen njaboot ngeen waxtaan ak ñoom ñu bàyyi xel li nu fi indi lu doon waaye itam bàyyi xel ki nu fi indi ku mu doon te mooy borom bi subhanahu wa taala nu indi jàmm mbokk yi jàmm day bu néewee ci yow boo tëddee di nelaw te ñu bañ a yee fitna ci biir réew mi. lii bu amul xeex dina am ci réew mi yow mi koy wax yaa ko sooke bu ay nit deewee yow la ñu war a jël tëj la ci kaso bi mbaa ñu la yow mi wax ni bu nangam amul danaa indi xeex ci biir réew mi yow nag avant ngay daaneel sa kàddu sax war nañ laa jël yóbbu la parce que yow nitu fitna nga mbokk yi nañu àndaat ak sunu xel nañu bàyyiwaat xel borom bi subhanahu wa taala nañu rus sunu mag ñi fi bàyyi ko ay waaye nañu rus mag ñi mag ñi bu ñu dellu siwaatu ndaañu am kersa de réew mi lu ñuy wax dara rafetu ci ñii xëccoo réew mi li ñuy wax dara rafetu ci te yéen kat seeni référence mooy ndaw ñi xale yaa ngi université jàng ñii ngi bitim réew di jàng xale yaa ngi ci école yi jàng te léegi xaleb ñetti at xaleb ñeenti at loo lu dégg du ko fàtte ñi ngi seetaan télévision yi xale yaa ngi dugg ci internet bi di déglu seeni discours xool la ca am njëriñ war koo jël waaw xale yooyu ndax li ñuy dégg ci yéen xaste gi ngee nekkee ci biir réew mi ndax xale yooyu war nañoo jël référence ci yéen moomu leen réew mi moomu leen réew mi moomu leen réew mi bàyyi leen xel ni réew mi moomu leen ko indi leen jàmm ci biir réew mi nañu ànd ak sunu xel nag ñun nañu ànd sunu xel ku indi jàmm ci biir réew mi ñu comprendre discours am xam ni kii kat bu demee assemblée nationale dana fa taxawal réewum Sénégal ñu voteel kooku. te ñu teg suñu xool suñu xel xam kii liggéey ki liggéeyul kii jiital intérêt personnel am nañu vérifier gars yi xool ñoom seen dund xool ñoom seen xam xool ñoom seen discours ndax nit boo ko dégloo war ngaa xam am na xam amul xam Sénégal réew mii réewum teranga la réew mii réewum jàmm la réew mi réewum xéewal la am na ñu fi nekkoon tey ñu ngi biir suuf nit nag war naa am way ba bis boo fi jugee ñu jëlee ab rii tuddee la ko ñun yeyoo na ko war ngaa am ab lay at war ngaa am war ngaa am loo xam ne ci sa biir réew bis boo fi bàyyi ko ñu jël stade tuddee la ko ñun yeyoo na ko war ngaa liggéeyal sa réew liggéeyin boo xam ni bis boo fi jugee ñu jël marché tuddee la ko ñu ni kooku yeyoo na ko ndax bëggam réewam ndax mbaaxam ndax xam-xamam ndax waxam lu rafet kenn du wax lu ñaaw ba gañe ci kii wax lu baax nekk ci lu baax di def lu baax kooku la ñëpp yi bàyyi xel wal birru yax murru kulla barin muxbitin waaye wal xusnu yaxsha kulla xasdin sujudi sayyidina Muhammad dafa toog ak saxaaba yi moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam laaj leen luy mbaax mal birru lan mooy mbaax Seydina Bakar ne ko mbaax mooy li nga gën a bëgg rek nga koy joxe premier mooy xaalis ci xol la ne ngay génn di dépenser di dimbali néew néew ji doole ji nabi lool ko loolu juz'un minal birri xaaj la ci mbaax wax leen mu luy mbaax Seydina Omar ne ko mbaax mooy ki la fëgg deux heures du matin am soxla nga fajal ko te kenn du yëg nabi ne ko loolu juz'un minal birri xaaj la ci mbaax wax leen mu luy mbaax Ousmane ne ko mbaax daal mooy nga jël sa alal ji di ko dépenser ci l'islam ba l'islam bii di gën a dëgër nabi ne ko loolu juz'un minal birri xaaj la ci mbaax wax leen mu luy mbaax Aliou ne ko mbaax si na Aliou ni ko mbaax daal mooy sa jaase ji nga génne ko di xeexal l'islam ba l'islam ba yëkkati ko nabi ne ko loolu juz'un minal birri xaaj la ci mbaax saxaaba yi gëstu ko Abdurahman ibnu Awf Saad ibnu Abi Waqaas Talxata ak Zubayru Abdullah ibnu Jaraax saxaaba yooya kenn ku ci ne di wax li mu xalaat ci mbaax ñu ne ko yow mi xam mbaax yaa rasulallah wax ñu luy mbaax ci la Seydina Muhammad ni leen albirru mbaax ñu ne ko ah mu ne xusnul xuluqi mooy rafet jikko gis nga tabe ci jikku ju rafet la bokk dimbali nit ci jikko ju rafet la bokk dimbali as gor ci dikk jikko euh, ci ci jikko ju la bokk di wax lu baax nekk ci lu baax def lu baax ci jikko ju rafet la bokk yow kenn du la gis kenn du la dégg élection ba élection ngay génn dem ci say mbokk élection ba élection ngay génn dugg ci sa biir koñ naan voté leen ma te bu élection yi buñ la voté nga nekk député nga ne cinq ans yi xaaral quatre ans et demi ma ma ku la woo du la jot doo dimbali kenn xaar ba mu def six mois nga door dugg sa biir mbokk dañ laa war a bàyyi. gars yi dee leen dimbali néew ju doole ji dee leen dem ci hôpitaux yi jënd ordonnance yi di ko faj milliards junni million nga denc ko ci banque bi di ko xool noonu doo dimbali kenn nit ñi ànd leen seen xel ànd leen ak seen sago. ki leen jege te jikkoom rafet te te jikkoom doy leen te discours am te discours am baax te ngeen am ci moom yaakaar ci xam-xam bu mu mënee taxawoo réewam àndee na kooka ak ki leen yëg faale leen mbokk yi réew mi réewum jàmm la ku nar a indi ay di wax ay bu ko kenn wooteel kuy indi geer ak xuloo bu ko kenn wooteel bu ngeen di wooteel wooteel leen borom xam-xam wooteel leen ku ngeen comprendre discours am ci mbaax nit mën na laa jege fekk discours am baaxul mën ngaa bëgg fekk discours am baaxul amul xam-xam bu mu taxawoo discours am baaxul tàng xol la mën naa taal am réew kooku bu ko footeel nee ko yow kat xam nga lu xewa ah, demal seeti leneen parce que yow mënoo nekk député ah demal seeti leneen mënoo nekk président ah demal leneen am na ñoo xam ne mënuñoo nekk président mënuñoo nekk député mënuñoo nekk maire parce que xol yu ndaw la ñu yora borom xol yu ndaw nag mënuñoo jéggalee ko jëllale mënuñoo wax lu baax seen xam-xam bariwul mënuñoo def lu baax ba pare nay tabewunu ñooñu jaruñoo voteel Sénégal mu ngi raam doxagunu ba léegi lay tax mu dox nag xale yaa ngay màgg yéenay suñuy référence suñuy doom ci yéen la ñuy xool suñuy jarbaat ci yéen la ñuy xool rikk waaye ak lu mën a xew dox leen ci mbaax dox ci bëgg seen réew ngir mën a yëkkati réewum Sénégal kon bu dimanche bu tax bu kenn tax ngeen sànni xeer bu kenn tax ngeen yuuxu bu kenn tax ñu sànni leen ay ay ay euh, lacrymogène bu leen ko nangu mën na laa indil feebar ci sa biir yaram mën na laa indil dee say mbokk ay ñàkk te koo àndal ba ñu rey la kooku moom day continuer yoonam yow say mbokk ay ñàkk say njaboot ñàkk loolu dara jaru ko àndale nag dal ànd ak jàmm nit dafay am sago te na yàlla doole bëggaloo boppam yàlla doole ñoo xiir ci boppam ci darajey sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, am na nu mbégte euh, incha allahu taala maa ngi taxawandi ba ca kanam rek émission bu mag boobu di siira ñëw ci waaye ni ko Pape Cheikh Diallo waxee léegi maa ngi gërëm waa New York yëpp Euh, président Adama Sarr maa ngi nuyu euh, Daouda Sarr soxna Aïda Diagne yal na yàlla barkeel leen présidente ñoom ñëpp imam Djibril Dieye maa ngi koy nuyu ala euh, honorable Faly Ndiaye moom itam maa ngi koy nuyu ñaanal leen yàlla yàlla yaayu daara soxna Fa Mbaw soppay Seydina Mohamed boobule soxna Yuma Aïcha ca Philadelphie soppay Seydina Mohamed boobule waaye gërëm bu baax a baax sëñ Sidi Ahmed si Seydi Mouhamadul Habib si ca euh, Washington euh, nuyu soxnaam soxna maa jigéen jaal soxna maa jigéen yaayam bi génn àddina maa ngi koy ñaan yal na yàlla kawel aljanaam yal na ko yàlla yokk yërëm ci darajey Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam soxna Adama Ba kenn amul fayam maa ngi koy nuyu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla yokku dëgër ak waa euh, Houston yëpp waa euh, Amadou Mbaye euh, Lamine Ndiaye Amadou Mbaye bu Baye Alhaji Mansour mbay ca Ohio Cincinnati maa ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokku leen dëgëral ak sunu wéy jur bi sunu Baye njaay mi nga xam ne moo ñu joxoon diplôme ba moom itam ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ca Ohio yal yàlla fay leen ci daraja si waa New Jersey kenn amul seen fay président Sidna Omar si présidente soxna Dorine Gueye moom itam ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax ñaanal leen yal na yàlla yokku leen dëgëral Euh, Mariam Soda Thiam te niw jéesi sama soppe boobule soppe Seydina Mohamed boobule ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla gën leen a barkeel ci darajey Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam soxna bisu moom itam nu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax kenn amul seen fay yàlla bi am fay yal na yàlla fayal ma leen sam di jaay alaaj mu niru ka ma nga di tre euh, ak soxnaam aja soxna daaro euh, ñoom itam ak waa waa waa waa di tre yëpp waa Michigan ñoom ñëpp waa daayira ba président ñoom ñëpp yal na yàlla fay leen imam nu ngi leen di nuyu bu baax yal na yàlla gën leen a barkeel ci darajey sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdoul Ahad Guèye xam nga bisam ba ca euh, Milan euh, Lecco le 16 septembre lay doon incha allahu taala waaye Sidi Mouhamadul Moustapha Sy bu Thierno Saïdou Nourou mu alxaaji Abdou Moussi alxaaji Malick euh, mbooloom mi nga xam ne daayiraam yi nga xam ne ñoo nekk ca euh, Strasbourg seen gàmmu ga seen conférence bu mag ba ma ngay nekk le 23 septembre incha allahu taala booba maak Serigne Moustapha noo fay nekk ca Strasbourg bu ko kenn kenn kenn wuute yal na yàlla yóbbu ca yooya Mamour euh, Niang moom itam bu Samb bisam bi suba lay doon ca Caaroy incha allahu taala sama jigéen ñi nekk soxna ñoom Ndeye Khady ca HLM ñoom itam euh, le 5 lay doon euh, waaye euh, waa Cambérène waa Cambérène suma yaay suma yaay Ndeye Fatou Diaw ñoom itam seen bis ba le 12 août lay doon incha allahu taala yal na yàlla yóbbu ci yëpp laaj maa woo am naa mbégte yal na yàlla fay leen yal na yàlla sàmm kóllëre gi ci daraja Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk yi waxtaan bi nag maa ngi ñëwaat léegi bu 16h jotee ci émission bu mag boobu di siira nu waxtaanee Sayyidina Muhammad ci mbaaxam waxtaane Seydina Mouhamed ci comprendre gi mu comprendre addina waxoon naa la bu fi nekkoon ci jamono bi photo yam rek lay teg moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek lay addina bi yëpp Serigne Pape Abdel Aziz si bu Serigne Mbaye Mansour kenn amul fayam ma ngi Amérique di ko gërëm sëriñ Badou Si yal na yàlla fay leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci darajey Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bari na ñu des ñu ma ñu ma war a gërëm euh, ci teraanga yi ngeen ñu defal ci cofeel ga ci mbaax ga incha allahu taala yooyu yëpp daañu ci ñëwaat waaye bu 16h jotee euh, la ñu defoon ca euh, New York daañu ci am lu ñu leen ci ñamal tuuti rek mbokk mi noonu maa ngi jégalu ci kàddu yu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala